bismillahi rahmaani rahiim alhamdulilahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala afdalil xalqi sayidina imaamillahi mahdil muntazar wa ala alihi wa sahbihi wa tasliman nu ngi sant yàlla bu baax di julli ci sayidina limaamu alayhi salaatu wasalaam ñaan yàlla yokki leeram ak njabootam gépp te maam seydi alayhi salaam nekk ci bopp bi di ñaanal bépp neeb islaam yàlla na yàlla yërëm leen te jéggal leen di ca seppi saxaaba seydinaa limaamu ya si diggante góor ak jigéen mag ak ndaw di nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp di si jiital sunu xalifa seydi muhammadul muxtaar ibnu seydinaa manjoon yàlla na fi yàgg te gën a wér mu ëmbaale njaboot gi yëpp di ñaanal ñi tawat yàlla sama borom bu fëgg seen bopp ñu nekk si tiis yàlla dimbali leen ba ñu génn si ñu nekk ci xat-xat ak ñi tawat ñëpp yàlla dimbali leen ba saafara leen yooyu le mbir ñu fasiyene yéene ñëw ak yéen rek ci tarikh comme ni ñu koy defé mercredi bu jot yalla def bi passé ñu am buntu bu ñu tambali won ci koor gi ñu detmal di ñaan yalla fekk ak jàmm du seeg bismillahir rahmanir rahim genn sek alhamdullilah rabbil alamin di ñaan yalla yombalal ñu xewal bu ñu woré ci barkeb seydina limaamu bi passé nak ñu waxon bay la alayhi salam ni nga xamante ni noonu la daan oore Cheikh Muxtaar wax ñu kooram gu mujj lan la digle woon ñu waxoon ni ndénkaane yooyu moom la ñuy sàmmoo saa su ne muy weeru koor nga xamante ni moo mujj si dundaam Cheikh Muxtaar nee na diggaloon na mag ñi suñu woor ka si sellal waaye fexe di bëri luñ cay saraxe ak di dimbali waate maanaam di joxe ñam waaye fexe nag bala wàññi sa wax ju ñaaw bo demee itam si sunu maam ju tedd ji Baay Ablaay Sylla yàlla na yàlla yokki leeram ma nga mom moom Seydina Limaamu alayhi salatu salaam jabran wa tawan fi siyam ala sibyani ahli lay. neena baye lay Laay alayhi salaatu salaam insister ak di digal si mu len di neex wala mu len di naqar li nga xamanteni moy koor si ndaw ñe nga xamanteni moy ahlu lay. kon lolu lu mata a xel la Seydina mamu alayhi salatu salam waxuma la mag ñi nekkoon ci këram waaye xale yi sax daan na leen forcer ak di leen naxtaan di leen tàmmaloo ak di leen xentuloo yoonu yàlla surtout bu koor ñëwee kon loolu lu doon tijje rek la mu am nag yoo xamante ni képp kuy laayeen war nga see def yitte damay wax ni koor at ba at la waaye yow ñaata at ngi nii jéemoo xam naka la ni naafila jéemoo xam nan la ñuy eh, maanaam jànge safa ak witar ya yan lañ say jàng ak naka lañ ciy jànge tey nag ñu bëggoon leen baaxe li nga xamante ni moom la Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam digle waa këram si ñu di koy naafila naafila di jour yi bari na waaye nag ki nga xamante ni da daan wax Jibril nee na ma borom nee na lum nu jox wax dëgg yàlla moo ñu doy te loolu la ñuy jàpp seydina limaamu alayhi salaatu salaam bu koor teroo keroog bu ne weer wi feeñ na la ni képp koo xamante ni sama taalibe nga jàppal ma ñaari rakk quinze premiers jours yi maanaam fukki fan ak juróom yu njëkk yi ngeen jàng rakk bu nekk faatixa ak fanweeri ixlaas muy trente ixlaas suratul faatixa war nañ ko jàng xam ko suratul ixlaas mooy xul huwallahu ahad ba mu jeex kon loolu lu mat a bàyyi xel la première rakk bi noonu nga koy defee deuxième rakk bi noonu koy defee daal di sëlmal loolu mooy naafila kër Seydina Limaamu alayhi salaatu salaam bu ñu ooree nag ba am fukki fan ak juróom maanaam 15 jours ba xaajal Seydina Limaamu alayhi salaatu salaam ni nañu def ñaari rakk ba tey waaye ixlaas boo daan def fanweer muy 30 da ngay def 15 première rakk 15 deuxième rakk maanaam fukk ak juróom première rakk fukk ak juróom ñaareelu rakk ba. kon noonu la ko Seydina Limaam alayhi salaatu salaam jàngale ba koor gi jeex mu am nag loo xamante ni lu jar a bàyyi xel la muy safa ba ak witar safa buñ ko dee wax mooy ñaar maanaam mooy paire witar buñ ko dee wax mooy li nga xamante ni benn la impair comme ni ko français yi di waxe Seydina Limaamu nag alayhi salaatu salaam digal ñu si ñaari ràkk yu njëkk ya muy safa ba nan si jàng fatiha rakk bu njëkk ba jël xul yaa ayuhal kaafiruun ba mu jeex teg sa iza jaa nasrullahi ba mu jeex suratul fatiha nag mooy saar bu njëkk suratul ixlaas mooy deux mooy cent douzième saar kon bu nu ñëwee ci safa bi première bi da ngay am xul yaa ayyuhal kaafiruun muy suratul kaafiruun muy cent neuvième suura muy cent neuvième saar iza jaa nasrullahi nga ci teg muy suratul nasri muy cent dixième suura muy cent dixième saar kon loolu naka ñëpp bàyyi xel ki nga xamante ni am na ay application yu mën a jàngi alxuraan ak si langue bu mu ko mën a jàngi ak ka bëgg a déglu pour mokkal na topp yi nga xamante ni moom lañ koy jox seen naa limaam alayhi salaatu salaam ni deuxième ràkk ba muy ñaareelu ràkk ba da ngay jàngaat fatiha nga jël soratul masadi muy tabbat yada soratul masadi mooy cent onzième suura nga dal seet ak suratul ikhlas moy 112e sura moy 112e sar lolou moy safa bi nga dal di sëlmal buñu duggé ci witar bi nak sayidina limamu alayhi salatu salaam digal ñu ni nanu jàng fatiha waxna la ko moy premier sura moy premier sar dal di ak suratul ikhlas bi nga xamanteni moy 112e sar nga dal di say tek nak wa ilahukum fallaxi suratul fallaxi nga cey tek muy cent treizième saar daal di say teg sóoratu naas yi muy cent quatorzième saar nga dollu say teg nag wa ilahukumu ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanu rahim loolu nag aaya boo xamante ni mu ngi nekk si sóoratul baqara numéro cent soixante trois kon mu ngi nekk sóoratul baqara numéro cent soixante trois kon loolu lu mat a bàyyi xel la bo pare saw hukum bobu nga dal say tek li nga xamanteni moy ayatul kursi ayatul kursi ñu bari xam nañ ko ndax lu ñi ñi maîtriser la moy allah la ilaha illa huwa al hayy al taaxuzuhu لا تاخذه سنة ولا نوم له samawati في السماوات وما في ard من ذا الذي yasfon عنده إلا bi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا min ilmihi illa bi السماوات والأرض samawati wal ard wala yahuduhu xifzahuma wa huwa al aliyul azim ayatul kursi yu moom itam mi ngi ci soratul baqara numéro deux cent cinquante cinq foofu la ayatul kursi yu nekk la nga xamante ni moo ca tegu muy ayatul kursi yu muy verset deux cent cinquante six muy laa kara laa ikraha fi diini xat tabayyana rusdu min al xayyi fa man yakfur bil taawut wa yuminu billahi faxas tamsaka bil xurwati lusqa laa infisama allaha wallahu samiun alimun muy suratul baqara aya 256 boo paree sa loolu nga daal di see teg xulillahuma malikal mulki tuxtil mulka man tashaaw wa tantihul mulka mi man tashaaw wa tuizzu man tashaaw wa tuzulu man tashaaw bi yadikal xayri innaka ala kulli cheyin xadirun ma nga nekk sa ali imran suratul ali imran aya 29 nga nga daal di say teg nag daxwaahum fiha subhanaka allahumma wa taxiyatuhum fiha salaam waaxiru daxwaahum an alhamdulillahi rabbil alamin aaya boobu mi ngi nekk suratu yunus aaya 10 foofa nag ngay daal di sëlmale boo santee ba toll sa ñaan nga bu ñuy wax amin am ñett ñu jug daal di jàng suratul mulki bu dee yow yaay jiite sa kër nga jàng suratul mulki doori tëj ñaan nga kon lii la seen naar imaamu alayhi salaatu wasalaam joxe liñ si jublu nag lenn kese la mooy ñi nga xamante ni bëgg nañ jàng saar yi ak bëgg a xam fan la nekk aaya yeeg saar moo tax ñu jukkil leen ko wax leen fi mu nekk beneen bi mooy ki nga xamante ni dafay dog kooram seen naa limaamu nee na li gën mooy bu jàkk ji noddee na fekk mu ànd ak njàpp bu nee jublu penk mu jublu penku bu fekkoon mu taxaw na toog wax bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin laa ilaha illallah muhammadu rasulullah allahuma salli ala seydina muhammadin wasallim maa ngi fas yéene dog sama kooru tey fas yéene kaa oor suba kooku nag premier jour bi day yéene woor weer bi yépp saa yu xëyee daal di feddali lii nga xamante ni mooy yéeneem booba ndax yéene farata la ci koor téere yi nee nan boo yéenee weer wi yépp yàlla dogal nga génn àdduna yàlla dina la fay yoolu weer bi yépp ndax yéene doole jamu am kon loolu lu mat a bàyyi xel la yaakaar naa lii daal ab tënk la si li nga xam te ne Seydina Limaam alayhi salaatu salaam jàngale naka sa koor comportement ya nag dinañ ci ñëw incha allah ndax kat nit ki bu wooree war na xam ni wax dëgg yàlla lii di xiif lii di mar ak bàyyi yenn bànneexi war na kaa sàmm ba loola du yàqu ndax kat yonente alayhi salaatu salaam nee na ñaata si ay woorkat amuñu lu dul seen koor googu xiif ak mar kon nag yàlla nu yàlla muccal si loolu xam li la seydina limaamu alayhi salaatu wasalaam jàngal nag avantage yi si nekk dafa bëri ndax seydina aliw jële nañ ci moom mu ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na képp koo xamante ni naafili nga bés bu njëkk ci weeru koor nee na da nga génn si ay bàkkaar manam di nga set ci bàkkaar comme bés ba nga xamante ne ganee nga ko sa woy xam nga liir bi dooru judd amul benn bàkkaar nee na yéen ñaar yéen a yem ndax darajey naafila ji yàlla yónni yonent bi alayhi salaatu salaam kon nag lu mat a bàyyi xel la lu mat a wattu la dinañ ci ñëw si yeneeni jotaay ndax fanweeri fan yëpp yonent bu si nekk am na lu mu ci wax yàlla nu yàlla defal dégg ak topp lu si jub ñu xam ne yàlla bu ñu dëngee bu amee maanaam lu si jubadi mbaa lu ci dëng mbaa bu ñu juum ñu xam ni sunu matadi kese la yàlla nu yàlla boole jéggal ramadaan mubarak yàlla yàlla yokki leeri baay abdullahi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله